la jox ñu ko dëjëw ndayam yow yaa ko tëgg ak man ak keneen keneen yow ñun tëgg mu dem ci télé bu mag Sénégal duul ay duulam ne Norvège ñoo ko décoré day duul décoruñ ko lëfal ndayam yow yaa ko tëgg te sa jabar xamu ko lan nga wax sa jabar bi ngay dem di katt gel bi ci néegam loo loo wax sa jabar Ousmane Ousmane moo am problème Ousmane la ñuy dem jàpple ngay duul ne Ousmane ngay fanaanal you mun a duul yow te yaa noon katt gel bi man na nag yow ñoo ko gunge ba ci ba ci gaar bi mu jël train dem Oslo Oslo bu mu fa demee amoon na benn programme sénégalais bu nekkoon Oslo ñu may ko xaalis bu bëri mu jël avion ñëw Sénégal bu mu demee Sénégal ci télé bu mag bi tuddul sax sa tur tuddul sax sama tur yow dafay wane trophée bi Norvège mayu ko lëfal ndeyam jëkkëru benn gel gambien dafa la naroon weer ak sa jabar pour wax waa Norvège ñun ñoo ci téye ñun ñoo ko de boo ko defee aduna tukki bur ko mës a weer bàyyi mu sedd yow naa la jàppale dama mës a gore ak yow nga naan man raada baar xam nga lan mooy raada baar kuy dugg ay baar naan sangara ko desit cottu ndey loolu man nga yàq sama der ma dañ maa yéene ceinture góor jigéen bu jógee Allemagne ceinture góor jigéen bu ñuy kattee di ci bun parce que dañ ma ko man danga ma gën a réew xam nga ma à deux minutes de chez xam nga fi ma dëkk man du ma Aziz Dabala man ku ma nar rey ma kàtt sa ndey wàccee la. sama booy woowu ma leen de booy ñoo ma seet si man fii la ñu naan seen whisky léegi la ñu xëy vélo bi may dawal rek cottu ndey sept ans euro lay jar wala ndax moo toog cottu ndey you know je suis infirmier barke alquran you know je suis serveur you know ci ay boîte bu mag a mag sama patron multi milliardaire parce que alxuraan ñoo ma débauché man ñoo ma jëlee infirmerie indi ma ci restauration di ma fay lu bëri yow man ku dul sama yaay faalew ma la sama papa gaañu la ku dul sëñ yow diine l'islam ak sëñ Fall jamono moomu boole ak yow du leneen man lu ma am bokk naa ko doomu aadama man yow dimbali moo tax ma ñàkk te xam nga dama héberger égyptien sama kër héberger sénégalais xëy na moom mooy dégg boo ma ëpp xaalis fuuf sénégalais la donc héberger naa ko ñetti weer sama kër héberger naa ab égyptien ñetti weer sama kër loolu dafa la jaaxaloon parce que pour yow waru ko def donc su ma neexoon ma bokk bokkal dëkk yor néeg donc di séddoo comme ñëpp te mooy dëgg parce que li may fay dafa cher donc mais yow dafa la jaaxal loolu ma jël sama kër bopp ndax lan bëgguma sénégalais ma tas ak sénégalais wala africain muy torox dama koy bëgg a héberger ma kër loolu kese la mais mun naa dëkk bokk kër ak ñëpp you sama yaay lu mu bëgg dinaa ko defal loolu rek moo tax ma def ko ndax bëgguma africain buy tortolaan sama kanam you know di waat Assane Diouf mu ñuy déglu woon na ma ñaari yoon grand frère xam naa yaa ñuy déglu grand yónnee naa la audio te xam naa yow ñuy déglu woo nga ma tey ci suba ñu wax ma ak yow yow Assane Diouf fi ma la tegoon tey laa la gën a teg fu ko raw suma grand la suma xarit nga woo nga ma ci suba ñu wax woo nga ma léegi ma nekkoon téléphone ki ma nekkoon téléphone mu ngi leen di déglu benn jigéen la mu ngi ci live bi wax naa la bi ma woowee man la Assane moo may woo de nga ne ma coupé nga woo Assane man la yow nit nga Assane di nit bu ma Macky Sall woowoon wala Ablaye Wade wala Karim lu tax ma coupé la dama lay wax yow ba doogoo asan ndax asan bàyyi faal la nit ku baax la suma grand nga xam naa yaa ngi ci laay bi you know suma buróo nga nee naa la duma la bàyyi foo far laa far buñ ma xamee yow yaa tax 2017 ba léegi yow yaa tax may xeex lañu indee Amérique moo ma metti ma jàppale la tu es mon grand frère tu es mon nani Assane Diouf one may leen ko ay kër gor la garmi la tey ñu war a ma ñaari yoon c'est moo grand frère c'est mon ami yow laay ananas ku la naan moo toj cottu ndeyam ah boo wàññiwul dinaa lu gën a toj cottu ndeyam you know one love gars yi bëggee mais mais mais mais Ragnar Ragnar demal siifal pose la question Ragnar Baye Fall Baye Fall frère maa ngi lay ziar de bu baax a eh, baax a eh. baax a baax Baye Fall maa ngi lay ziar sama waa ngi lay ziar bu baax ñëwal Ragnar ñëwal waa mais maa leen di. maa leen delloo ziara ambassadeur maa leen bëgg maa leen bëgg. maa leen ziara Baye Fall kaddu yi rafet na Baye Fall kaddu kontaan na. kontaan na one love man damay laajte yow man defe naa ni si panel bi man maa la njëkk a laaj ne la Baye Fall ba ngay njëkk may njëkk diggante yow fi man ne la carrément ni yow problème Aziz Dabala ak Laye Ananas lan moo taxoon nga génnoon doon ko défendre nga ne ma déedéet du ko wax daa am lu may xaar jotaguma ndigal pour wax ko. boobu dama jàpp ne digal bi nga doon xaar mooy ça veut dire que ni da nga doon xaar laay ananas waxal la bu la waxalul woon doo wax carrément lan moo taxoon nga defal Aziz Dabala vidéo n'est-ce pas léegi foofu ma pare ci léegi nag benn question bi ma lay mujjee posé nii nag moom mooy defe naa mooy question finale bi sama diggante man ak yow dootuma la posé di question mooy dama lay laaj laay ananas ba mu defee tournée boobu 2019 <clears throat> ba tey est-ce que amaat na tournée boo xamante ni yóbbuwaat na ay artistes yu mun fecc comme Aziz Aziz Dabala ci diggante bi ba mu ko defee ba léegi est-ce que amaat na ko loolu laa bëgg a xam quoi. Eh, Ragnar maa lay bëggee maa naa la wan love yaa jo yaa góor yàlla ami. waaw bu baax mon frère. maa lay ziar bu baax. léegi question baa ngi noonu man moom sama mm-hmm. question benn la rek après boo ñëwaatee rek mooy ceinture deux puces bi maa ngi tëj micro bi ceinture bi ceinture bi. Lai Ananas <laughs> in the Kelkai, Norvège. You know, Muntu in his name. Ambassador, I'm not going to n'est-ce pas? You know, Lai Ananas, Muntu in his name. Hein? C'est fini. Muntu in the Ken, ci turam c'est fini. xëy na mm. jabaram mais moom non même bu changé woon société. mu am nga loo ma kay loolu kay def nañ ci bi sax. voilà journal Norvège. Uh-huh. you know mënutul indi ndey képp ku mën a dalay indi Norvège day fen muntul indi cottu ndeyam kenn fii ci Norvège jabaram peut-être mais moom day duur mun indi ndey kenn yow bi mooy góor yàlla nga ne ceinture bi ah waaw non Baye Fall xaaral <laughs> yow Baye Fall góor yàlla question bay laaj nii yow ko ba léegi de dama ne waxuma Norvège kase waxuma Russie kase waxuma Allemagne kase waxuma France kase xam nga tey nit ki da ngay nekk genre da ngay nekk manager di yóbbuwaate ay nit ñuy tukki comme ay genre festival yooyu xam nga tey festival boo demee ba di si yóbbu ay nit dafa am ay danseuses yoo xam ne ñooñ ngay nekkal pour mun di prouver di mun di yóbbu ay nit ci dëkk yi mais est ce que xam nga tey amatul danseuses yooyu comme Aziz Dabala moo fa nekkoon parce que yeneen danseuses yi nekk Sénégal lay ananas mun leen fay pour yóbbu leen ñi fa nekk dañoo ñu seen niveau dafa am doole xëy na Aziz Dabala la ëppoon doole doon ko doon ko napp di ko yóbbu par force. Mm-hmm. ba booy bi insister. li jot a xew ni si la xew mais dama ne est que ba mu yóbbee ñoom Aziz Dabala ba tey ci Europe bi quoi est-ce que tey ci ba mu yóbbee ñoom Aziz Dabala ba léegi yóbbuwaat na nit ci Europe bi pour genre tournée yooyu est-ce que amati na gañeeti na confiance yu tubaab yi ci ay artistes yoo xam ne proposé na leen ko xam nga tubaab bi tey nekku da nga naan ko yor naa ay artistes rek mu ne la waaw indil déedéet tubaab bi da yor naa la yor naa xool vidéo spectacle artiste bi artiste bi nekk sa salle def ay spectacle nga ñëw wan leen ko ñu doogay appuyé wu d' ci loolu doog lay valider pour nga indi leen est ce que ba mu yóbbee ñoom Aziz Dabala ba tey amaana yeneen artistes yoo xam ne yóbbuwaat na ko ci dëkku tubaab bi ci Europe bi ko quoi loolu laa bëgg a xam. waaw ok ok bro Ragnar maa ngi lay ziar mënul indi ndeyam xam nga ñan lay indi dafa am artistes yu nekk Europe yoo xam ne ay musiciens lañu bu amee concert wala benn programme ñoom lay indi moom moo tax ma am Omar Sow Omar Sow musicien bu nekkoon super jamono nekk ak Youssou moo tax ma ko. muy sama grand nag ma yor numéro téléphone ñuy waxtaan ci Facebook ci lépp mu lay ananas mënutul indi benn picc pour pour mu leer yow bu amee concert lu muy def ay artistes yoo xam ne bon dama leen respecté ñu may déglu bëggu ñu ma tudd seen tu daal mu Omar Sow mun naa ko tudd yow suma grand kooku eh, xam nga musicien interplanétaire la kenn mënu ko teree dugg ci Europe bi parce que jabaram avocat la moom kilifa la ñu ñëpp xam nañu Omar Sow Sénégal. ñoo ñeneen ñi na du ma leen tudd ñu ngi Europe ñooñu lay woo bu amee concert wala jabaram am concert ñoom lay woo mu ngi mel ne yow Ragnar wala góor yàlla wala Jo ngeen nekk Paris wala nekk Allemagne wala nekk Norvège maam programme ma woo leen parce que am ngeen kayit you am ngeen kayit you donc yéen da ngeen jël avion rek ñëw you know mu tul jël benn mbindeef Sénégal indi ko Europe day fen day lekk seen xaalis. du leen jox saram ndayam du ngeen am visa maa la ko wax mënutul indi kenn fii ñëpp ko xam ñëpp koy jëw ñu de grand dama la beneen affaire banquier bi banque bi DNB DNB xam nga DNB xam nga man xam na ñu dañ la doon yàq ci sa jabar man maa taxaw ak ak ak sama sœur bugguma tudd laa la Gambienne mu ngi ñuy déglu mu ngi suuf nee na buggul ma tudd ko mu ngi seetaan ñun ñoo taxaw xeex pour gaayen bi tubaab bi norvégien bi mu wax sa jabar yow ba nga ñëwee xotti sa carte bancaire pour nax banque bi nga changé sa carte chaque semaine nga changé ko saa boo triandee sa jabar bu la tiitalee nga loxo yow lépp ñun ñoo ci taxaw te yeewoo ko ba ci alxuraan nga dafa gel bi nga naan ko Sulaar la Ousmane day naan day naan sàngara day nan you know yi desal gi des desit gi gel bi nara Ousmane de xamna ko day liggey de you know lu muy def mo koy defal bopam you know nga yak sama der parce que yow bugo bokk sa xarit mom non la mel mom manam bo nekk xaritam du la bokk mom non la mel dafa fi mm-hmm. you know dina yak sa der pour ñep daw la moom kese mu mm-hmm. ak mo dina use mm-hmm. man nak duma ko ñuy use ndayam lay ananas mënuñu indi benn doomi xaram ci Europe bii. waaw foofu moom daanaka non xaaral ambassadeur xaaral balaa ñuy kii foofu moom leer na macha allah man kii bi ñu ñëw si trophée bi trophée bi ceinture bi quoi. macha allah xaaral xaaral ah? xaaral. non non non trophée trophée ma dama ko dama ko bëggoon laaj rek yaa ngi may dégg. maanaam ma maanaam mm-hmm. maanaam slip boobu nga tudd ban kat moo ko moom ban artiste. waaw slip bi artiste bi xam nga comme jotagul yoo xam sama frère la. waaw dëgg la. góor yàlla suma frère la. dëgg la dëgg la dëgg ko wax ci suuf. non dëgg la rawat rawat comprendre naa la am na njaboot te mosuma tooñ. dëgg la non xam naa comprendre naa. jigéen la tooñu ma. tooñu dëgg la dëgg la dëgg la la. donc dama koy sutural. non si si si si si si. moom comme da a bës. ma artiste bi. waaw dañuy sàccanday téléphone téléphone suñu jigéenu Gambien bi. artiste sénégalais boobu moo kat nday téléphone gel bi ok kon laay bul ma yëngal parce que alquran boo ma yëngalee ma kat ndayam dugal gel léegi mu dugg kooku xool bëggul dugg de ni ñuy déglu yow mais bu ma neexee léegi mu dugg elle m'écoute you know mu may déglu my sister yaa ngi may déglu ah moo sàccanday sa téléphone sa kër. you know toja nañ téléphone bi taptandem yóbbu ko Sénégal you booboo gën a dee na ko laaj man bu yaroo yarul leer na nañ leer na nañ gars yi la police mhm. war naa ak ñoom yàquma sa der mais avertir naa leen hmm, je le connais. te ñu ngi sama ginnaaw sama koy sama kër yi soo ko na xam na ko mais je reconnais connais gars yi gars yi séntu sama commentaire ha, ah, gars yi bye Baye Fall kàddu yi rafet na trop machallah allah. yow moom yo nga maa bëgg rafet. non yow moom yow moom yow moom borom baax nga quoi. you know moom si dañ ko koy wax du moom yor jabar yor ay doom ñu ma yor jabar yor taxul ñaari waye gel bi ma woowee jox ma preuve dugal la dugal ma nga daw lay gel bi dafa ma wo woo la dugal ñu ci groupe maag yow nga daw gel bi jour bo ñoom preuve maa ko yónnee ceinture bi ceinture bu am koy bi ñu mën ko dafa am jabar mu mom jabaram day takk ceinture bi diko kat ci bun mom muy quatrième ci bu moko wax gelbe ko wax lu mo wax bu turu gel bi ne laay boo waxatee you know du bëri la xam man nak na nga xam ne police Norvège xam nañ ma mm-hmm. you know dama la tëgg a ni ma ayé passeport you know ma la tëgg a wëndeel ana azula boo norvégien la norvégien la nak na dëggal bopam dégg aussi mamita daf ma lay fal saga wax ma lu ñaaw mamita musuma la saaga xaw ma la ambassadeur moo tax ma am ma yaa ngi déglu laay fi bul dugg ci man dof laa bu wëyëngoo fas bu mamba laa dama koŋ bul dugg ci man bul ma laal wax nañ ma ko nag nee nañ danga ma attaqué you know yaag say góor yooyu musuma la tooñ musuma la attaqué ma taa góor bu gis ma tuddee woon waaw ah, moo tax ma dama koy avertir rek. Mm-hmm. you na ma moytu moytu ma dof laa laaj ma Assane Diouf laaj ma Sénégal man boo ma yëngalee dof laa man saaga yëngaluma you know cottu ndayam yëngaluma koo xalaat Sénégal yor naa ni. ndey gis naa ko fi de. ndey géey. gis gis naa yow moom yow yow yow yow tu es yow borom baax nga <laughs> man nee naa nit ki xolam laay jàpp quoi yow vraiment nit ku baax nga quoi mais man mais mais mais man sa frère sa frère yow xam nga ni yow jox naa la cër yow delloo nga ma yow dama laa bëgg ba tey dama koy dëggal que yow man dama laa bëgg te yàlla tax ah, euh, léegi waaw kenn sa bàyyi kenn sa ñëw na mu wax te soppina bi ñëw ma fa bëgg a. non li ma bëggoon kii Baye Fall rek mooy dama ko bëgg trop léegi mu jégal ma rek tuuti rek maanaam ñaan xorom bi rek soo ko mënee wàññi tuuti bi xorom bi xorom bi rek dégg nga. incha allah yow sama frère loo bëgg laa bëgg waaw waaw macha allah nee a nekk fii ak ami. waaw ak dégg ñoom yow yow kër gi nga. waaw xorom bi dégg nga. yow rak naar yéen foog ngeen nekk ndeyam fii ngeen wàcce ma du jib salaamaaleykum salaamaaleykum góor yàlla Baye Fall may leen ma tuuti rek ma wax leen lu tuuti rek maa leen nuyu yéen ñëpp waa panel bi leen rek laa leen wax encouragement donc laa leen jox di leen wax nag vous avez intérêt à que ngeen réussir si seen kii bi parce que tey sama ménage mooy ni yëngu na ci say ci ci ndax ndax seen panel bi à chaque fois yéen lay déglu su may sangu di yóbbu téléphone bi ci duus bi fu may toog di kii mais tamit saagay ni ngeen ko wàññi parce que sama jëkkër ci loolu la ma merewee s'il te plaît loolu rek laa leen ñaan ah. waaw ngeen focus nag ci affaire bi. allez bon courage merci beaucoup. Ah, neel sa jëkkër ah, na la baal ah. bàyyi leen sa taal ok. ok mayel kii mu ñëw soppi na bi go ahead. Eh, na bi. leen damay wàccaat Baye Faye yow maa ngi jégalu Baye Fall lenn rek laa ñaan ngir ak yonent bi lenn rek laa ñaan frère femme bi nga xamante mooy loolu borom tawfeex bu ko tudd dafa am njaboot te am na cër dama lay ñaan rek ngir yàlla bu ko tudd am na ñëpp xam nañu ku ko jege xam nga nu mu demee mais bu ko tudd léegi am na ku ko remplacer ki ko remplacer nag mi ngi ci lëndam léegi jotagul mais kii moom comme yàlla muccal na ko ba mu benn affaire bu mu bëggoon la ba tax mu defee noonu dafa am ay doom am famille ñu am fuñ ko teg ngir yàlla bu ko yoole yow laay nga joteel jotewoo ak moom bàyyi ko rek moom ci biir xam naa nag waaw bàyyi ko ci biir ba ci sa passeport bi réeroon ci biir festival bi xam nañ lépp nu mu demee gambien bi maa ngi lay ñaan yow xam nga mooy loolu yow falaaw quoi jéggale ko c'est passé c'est passé téléphone bi def ko sarax comprendre nga def ko sarax donc laay yow sa ordinateur sa passeport lépp def ko sarax xam nañ lépp nu mu demee mais ngir yàlla dama lay ñaan xam nga bu dee yaay gambien bi mi ngi ci suuf xam nga rek dama lay ñaan moom na bàyyi noonu yow tamit dama lay ñaan femme bi xam naa ne bàyyi faal nga dama lay ñaan ngir jëmmi sëñ fàllu laa koy ñaan femme bi bu ko bul wax turam xam nga dafa njaboot jamono yu ñu toll nañ ko ñaanal yàlla defal ko tawféex mooy loolu quoi moo tax àdduna looy mënti def rek li ma doon wax mi ngi ñëw sooraaleel lu ñëwagul di def mais après doo comprendre te genre ananas yi ah ñambi xit sax moo leen gën a dund moo leen gën a baax mooy loolu li ma waxoon mi ngi doon ñëw nee naa leen woon ci depuis le début àdduna jaral na ko lu ne te du jàpp bàyyi kon yaakaar naa ne dëgg gaa ngi feeñ ki mujjee wax lan la wax magam dem na barsàq est-ce que barsàq bi loxoy kese la kenn xamul donc yàlla ñu yàlla musal ci lu bon maa ngi leen di bàyyi après incha allah waaw mais ñii di bind ba léegi Ndeye Gueye. Ndeye Gueye Ndeye Gueye Ndeye Gueye mais mais Ndeye Gueye ñun gisuñu ko ñu ngi koy jéem a mbaal mais gisuñu ko de sincèrement. non non gis naa ko de gis naa ko mu dugg de. ah kon mbaal ko. non gis naa ko mu dugg mais gis naa ko gis naa ko muy dugg muy dugg. ah ok. Ndeye Gueye dugal waay Ndeye Gueye. gis naa ko mu dugg mais dafa dugg ak peut-être day xool ndax dañuy wax si moom. Mm-hmm. mun nañ jëy mun nañ wax si yow de boo demandé yéeg ñu wax si yow boo waliwulee tam ñu commencé wax liñ doon wax ba nga ba nit partage la. loolu laa ne dañ maa ngi wàcc dégg nga bàyyi faa laa ah, nga réew mi de. El Hadj El Hadj bàyyi naa la ci loo nekk. xam ne kani Saddam de safna de suñ ko touf nek da dana ci nekk leen ci jàmm gaay sentu leen sama commentaire gaay sentu len sama commentaire ci souf yow ah, yow ki na la jox pompe bi après nga gar keur ndax keur gi muy commencer di rax en tout cas man limay wax moy ambassadeur wala jaay nee nena ko fasé carbet tamit hein ah? ko carbet nañ tarbe tamit commentaire yi. en tout cas waa enregistrement ñëw ñëw nañ fi xanaa waa enregistrement ñëwoon fi wala ñëw ne. <laughs> ñëw nañ ba dem. <laughs> taay de am na panel yoo xam ne moom buñ buñ buñ panel yoo xam ne buñ jëleewul ci ambassadeur moom duñ. ambassadeur ambassadeur rek. seen dé seen débat daal bu ye deux cent personnes bu fa nekkee rek xamal ne dañoo jël ci live bu ambassadeur. góor yàlla bétti. waaw. ambassadeur mu ngi fi de maa ko partagé. dugg na dugg na si ci live bi maa ko ko partagé yàgg na fi day gëstu di ndax ñu ngi wax ci moom mais mu ngi ci live bi maa ko ko partagé. man kay gis ma gis kay Ndeye Gueye la. mu ngi fi ne ko mu ñëw. Ndeye Gueye ñëwal Ndeye boo boo ñëwee li nga waxoon. li nga waxoon bu dee dëgg la fi yow yéegal ci live bi. ma wax la na la jot nga appel avant ngay changer version man hélas maa waxoon de te incha allah le douze mai yi Sénégal daa nga wax sëñ Bada nag ne ko ku la wokk nga xuri mais wokk naa la de te maa ngi xaar nga yéeg fii si laay man nag fii rek laay waxee quoi feneen foo mën a yéeg di wax mun du ma la fa fekk di la toon ndax man fii laay waxee munumaa dem dañ ma dañ maa embauché dañ maa tënk fii moo nekk suma compagnie you boo yéegee daal moom di nga dinañ la tontu Sénégal nag lu fa waay wax jàppal ne bési ngi ñëw dinañ la tontu muy zoo muy keneen a si yam waaw. dafa am loo xam ne dafa nekk ci monde bi nga xam ne mooy affaire artiste affaire showbiz xam nga mooy lan dafa am looy nangoo dund rekk jàll boo ko nangoo wut dund dellu gannaaw mbaa ñu toroxal la mbaa ñu torture la showbiz nag dafa am ñu ko moom ku buggul dara cosaan xamoo sa coccat boo duggee ci showbiz mën nga cee jàll à pour cent waaye lan am dalay lakk Aziz yàlla nattoo woon na ko muy dund showbiz parce que xawma Aziz xawma laay ananas ma ngi koy dund mais du ko dund dund ci ngor lu ci for teral ci ndeyam teral ci ay mbokkam yàlla dogal nag mu dajeeg ñoo xam ne danoo bon ndax boo xoolee ci àdduna ñi avancé ci suuf bi ñépp proposé nañ leen lu bon ñu nangu ko moo tax ñu réussir du ñépp nag laay wax mais boo gisee may wax dafa am lu xew barki dembo ndjay defé na né dañ ne xam ngeen lay ananas kan la ap PDD mi nga xamné ne mu la promouvoir yak sa aduna toroxal la tëddee la kanam tëddee la gannaaw muy goor di jigen lay ananas d'après ni mu ngeen def wa baxna rek ku yes lima deg lepp ci lay ananas moy ku bon moy ku yes moy ki nga xamné ne xam nga bu ñëk boy ut liggéey dañ lay defal promotion canapé am na fi jigéen ñoo xam ne jàll nañ ci loolu lay ananas na